yaram daf koo gën a bëgg a ñoŋal moom Bakane Seck ci biir journal bi di Rewmi wax na ne jaar na ci Baaba Maal ak ni nga xam ne moom la ko Baaba Maal taxawoo wax na tamit jaar-jaaram bi nga xamante ni am na ko ci Jolof Band maanaam digganteem ak Viviane wax na ko moom Bakane Seck daan nay wax ne man daal tëgg la ma gars yi xame woon waaye nag jamono ji na sa ay clip ndax nag ay clip ak xeet yu ni a jaay li nga xam ne mooy artiste wax na nag projet yi nga xamante ni jamono ji daan na koy am waaye nag jafe-jafe yi nga ni moom la la mooy ñàkk ay moyen nee na rawatina yi nga xam xam ne ñoo nekk ca diwaanu Kaolack moom Bakane Seck nee na coronavirus bi tax na ma ñàkk ay millions yu bëree bëri ndax amoon naa ab projet boo xamante ni ay millions la coronavirus bi maanaam moo ko yàq moom Bakane Seck ci journal bi nee na jamono jii nag ma ngi waajal li nga xam ne mooy ab album waaye nag ay projet ma maanaam ubbi studio bu mag bokk na sa jamono jii nag ma ngi sàkku état bu Sénégal maanaam ñu daal di koy jàppale ci projet yi nga xam ne daal na koy naal yéene kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa jàngalekat yi kuréel gi di g na ñoom nag mer nañu ba maara détail yi jamono ji sax seen revendication nee nañu nag danañu dem fi nga xamante ni mooy ci ab grève ndax ñoom gis nañu ne état bu Sénégal faale wu ñu leen fulaa ñu leen ndax bëri ay accord yoo xamante ni signé woon nañ ko te ba léegi ni France dali xëddee na moo tax journal bi nee na jàngalekat yi bokk ci G20 danañu dem ci ab grève ñaar fukki fan benn ci weeru avril ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril yéenekaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa njiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na jafe yi nga xam ne moom la étudiants yi di dund métti na génn xeetu métti goo xam ne kenn wuru see noppee nee na état bu Sénégal lépp moom la dafay torturer retrouver psychologiquement ñi nga xam ne ñooy étudiants yi état bi dem na ba nga xam ne étudiants yi sax amatuñu yaakaar te nag njàng mi nga koy jàng maanaam njàng mi métti na genn xeetu métti goo xam ne fu na nag étudiants yi ngir nag ñu jot ci seeni bourse maanaam jafe-jafe yu métte métte la ñuy daj danañu wàcc ci mbedd mi maanaam ñu teg leen loxo ñii ñu gaañ leen léeg-léeg sax mën nañoo dem ba di leen di rey yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Aliou Ndoye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum napp gi dafa demoon ca Joal Fadiouth waaye xoloo ba maara xam ne moo metti xam ne ñooy nappkat yi maanaam licence de pêche yi nga xamante ni jël nañu ko jox ko nag waa bitim réew ne maanaam ñoo nekk ci géej gi di napp jën yi ba jamono ji ñoom ñu am ay jafe-jafe yéenekaay gi di Libération nee na Aliou Ndoye nga xam ne moom lañ dénk wàllum pêche bi yuuxu yi nga xam ne moom lañ ko yuuxoo ni ki démb ca diwaanu Joal Fadiouth dina ko yéex a fàtte lool yéenekaay gi di L'As xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum accès universel à l'électricité Baba Diallo mi nga xam ne mooy directeur général bu ASER agence sénégalaise d'électrification rurale daan nay wax ne ñi nga xamante ni ñooy secteur privé bi jamono ji nag am nañu mébét dugal seen loxo ci li nga xam ne mooy courant ngir ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi secteur privé bi ñoom sax nee nañu lu toll ci mille quatre cent milliards maanaam bëgg nañu koo teg ci taabal bi yéen a kaay gi di réew mi ko di jee génn ñu réew mi yóbbu ñu Congo Brazzaville journal bi nee na njiitu réew ma di Denis Sassou Nguesso daan nay prête li nga mooy serment ci kanamu njiitu réewu Afrique yu bare bare gi ba tey xëy diwaanu Mali nee na foofee lu jëm ci seeni élection présidentielle ak élection législative jàpp nañu ko maanaam bu ñu dugg ci atum 2022 yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu nañu ginnaaw manifestation yi nga xam ne amoon ci réew mi ba ñu génne ca manifestation yooyu nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci pouvoir bi dañuy amal ay mitin nag di sa def ay baree baree baree mitin ak millions yi nga xam ne moom lañ say def mu yemboo ak jamono joo xam ne askan wi ñenn si ñoom dañoo sonn ba maara détaal yi moo tax nag ñi nga xam ne ñooy activiste yi ak société civile bi ñoom nag ñaawlu yi nee na ñi nga xam ne ñoom lañ dénk nguur gi jamono ji la dañoo war a delloo réew mi yi jamono ji ci ay caaxaan la nekk ak tuur lëndëm ñi nga xam ne ñooy askan we yéen i kaay gii di laas ñu xëy fekk fa Moussa Baldé ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum agriculture nee na nag campagne ñu ren bi maanaam ñaar fukki amuñu campagne bu ni mel nee na lu jëm ci wàllum céréales mboq meeg dugub jeeg ba bi ren ji am nañ ci lu toll ci trois millions huit cent mille tonnes yéen i kaay gii di libération ak Vox Populi xëy wax ci lu jëm ci wàllum faux médicament yi journal na ñëw def ci ay révélation nee na faux médicament yooyu xam ne moo ko dugal ci réew mi 2019 waaye benn fan ci weeru janvier atum 2019 boobu la entreprise boobu daal la commencé yëngatu ci ay activité illicite maanaam ci loo xamante ni jaarul yoon ay fraude ay ci ay wàllum médicament te nag li nga xamante ni moo ca gën a doy waar mooy faux médicament yooyu ay pharmacie ak ay hôpitaux ak clinique lañ ko doon fournir yéen a kaay gi nee na faux médicament yooyu nag ma ngay jugee ca diwaanu Chine yéen a kaay gi di estat xëy di ñu xibaar naan ñu coupe Angleterre tey gi nee na ca Italie